auzu billaahi mina seytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam ba Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam fu mën a nekk ñëw ngi lay jaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwalu yaar defaru àdduna ak àllaaxira rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam Chifaou ñoo ngi leen ziar baax di wax ne Daaru Salaam Chifaou dana seet wala seetale wax la sarax wala wax la sa càngaay ma mën a tey nag dañoo ñëw ci kuy wut liggéey vidéo bi koo gis na ko tasaare ndax ñi wut liggéey bari na lool kuy wut liggéey da ngay bind lii innakal yawma ladaynaa makiinun aminun innakal yawma ladaynaa makiinun aminun loolu ngay bind 66 nga koy bind tur yàlla allah mooy 66 moom nga koy bind juróom-benn fukki yoon ak juróom-benn nga koy bind boo ko bindee nga wut fa nga bëggee a liggéeyee ngay dem wut fa suuf moo xam usine boo bëgg a liggéey la moo xam marché boo bëgg a la moom daal yaa xam foo bëgg a liggéey daal foofu nga dem nga wut suuf sax nga boole ko nga di ko sangoo diir bi nga koy sangoo tamit nag da ngay sikkar lii 66 yi nga koy sikkar moom it aay bi innaka yow ma la lay naa makkinun amin nga koy sikkar 66 baat yooyu da nga koy sikkar juróom-benn fukki tamit tey bu baax ndax liggéey nag sabab loo koy may waaye toog tamit rek di xool moom mayewul liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh